D'accord alors euh, Abdou euh, voilà, avant Abdou Karim peut-être ñu dem ci Aliou Sow qui vient également euh, de nous de nous de nous rejoindre on parle toujours de forfaiture on a vu ce qui s'est passé euh, daloon Sen TV daloon euh, maintenant mu ngi bëgg dal euh, daloon Walf également est-ce qu'on peut dire que État dafa perdre un peu de li mu li mu li mu amoon ma ouais, c'est un peu la désacralisation de, de, de, de l'État. Et, et, moi, quand j'entends tout ça, franchement, je suis, je suis dégoûté. Je suis dégoûté que j'entends, parce que finalement, qu'est-ce que je sens Je une haine qui existe entre des gens, parce que tout simplement, ils veulent le pouvoir ya dafa am ñoo xam ne dañ ko bëgg ñaari ñi dañ ko bëgg téye li leen intéressé le pouvoir Sénégal j'ai comme l'impression je sais pas je pourrais me tromper mais l'avenir jugera mais j'aurais comme l'impression que ni parce que man man man man man man euh, nee naa man bu ma gisee nii wax ni man man mënuma comprendre je man man en laay gis en bu am entre des gens des sénégalais yoo xam ne ñoom lenn kese normalement ci li ñu wax moo leen tax a jóg mooy euh, euh, defar réew mi mais kuy defar réew comment ils ne peuvent pas comment ils arrivent ils arrivent à ne pas s'entendre euh, comme ça di di di di di di di di xeexante di di dëmmante di pistolet di ñàkk wóolante <laughs> institution yi nekk fii ku nekk di door sa morom ku nekk di wax ñuy xasante dënn yi di jóg man sama dënn li koy jóg du lii li koy jógal mooy les gens qui souffrent dans ce pays là comment faire yan mooy ay solution mooy je que ni nguur li nguur la nguur moo ñu moo ñu sonal parce que finalement ñi fi nekk dañu bëgg a téye nguur gi parce que mm. n'importe comment li leen intéressé mooy fexe def seen kamtalay kàttan ba euh, euh, continuer di téye nguur gi sans doute parce que avantage yi nekk ci nguur moo doy waar et jóguñu pour réew mi li leen jë tax a jóg mooy seen bopp ñoom et les autres aussi veulent les remplacer tout simplement parce que ñoom it seen clan la ñu seen clan la ñu yor ils euh, n'importe comment ils n'ont qu'à faire le maximum par n'importe quel moyen pour ñëw ci nguur gi bu ñu aussi ils feront exactement la même chose. parce que su fekkoon loolu kon ñu dem ci nguur gi directement. non parce que ah bu fekkoon loolu ñu dem ci directement ci nguur gi. déedéet j'ai la possibilité d'aller donc militer à la terre. non non nguur la moo ñu intéressé. je je termine. ah donc j'essaie de donner euh, mon ak ak nit ñi ni leen gisee ñuy doxalee parce que man mënuma comprendre ennui di am entre ces gens là mais yéen xanaa du Sénégal rek leen tax a jóg yéen xanaa du da ngeen bëgg da ngeen bëgg liggéey réew mi rek yéen xanaa da ngeen war a dajale seen compétence yéen ñépp ah ci benn ci idéal commun muy fexe def seen kamtalaay kàttan ba réew mi ndool jeex fi les gens qui sont fatigués ñu dootuñu sonati ñu xiif dañuy lekk ba suur dëkk bi am ndox ba ñuy naan ba màndi euh, di lekk non Aliou euh, euh, pourquoi ci ban sens la ñuy waxee wax waxu haine moom moo am est-ce que tey jii kii di président de la République wala ñi nekk au pouvoir est-ce qu'il n'avait pas amuñu woon attitude wala amuñu woon pouvoir u arrêter tout cela juste oui. parce que euh, tout est suspendu aujourd'hui ci kii di président de la République parce qu'on ne sait pas ndax dafa bëgg def troisième mandat ou pas pense que li fi am yëpp ça découle de loolu noonu. vous croyez que troisième mandat moo waroon nekk problème mu réew ans d'indépendance. mais justement c'est pour ça que les gens. vous croyez que waruñu woon toll de maturité du ñu wax sax waxu mandat de mandats que Aïcha war a am wala wala wala Sali war a am. mais mais Aliou est-ce que c'est pas pour ça que ñun ñuy xeex non damay laajte xam nga aussi ñun waroon nañu dépasser lii. justement waroon nañu dépasser juste parce que lépp tourne autour d'un mandat ou lu ñu waroon fexe ba def pour que mbir mi day automatique ba nga xam ne nit sax dina am benn mandat wala mu am daggitu mandat tout simplement parce que il n'aura pas bien travaillé moi je pense que ni du affaire wu mais rendez-vous compte dans ce pays ñun li ñuy xeex du dara lu dul troisième mandat jàmm gën troisième mandat machin troisième mandat jëpp troisième mandat mais et alors il est où le problème et si vous tous vous vous réunissiez autour d'un seul ngeen wax lan ngeen bëgg ci seen réew waxtaan ko waxu dëgg waxu xol waxu xol bu set bu rafet waxu waxu jubbanti waxu générosité waxu dajaloo pour l'intérêt du pays pour les gens qui souffrent qui crèvent la dalle qui sont malades tey boo demee ci hôpitaux yi ils crèvent la dalle ñu bari amuñu paas amuñu lu ñu fajoo boo demee ci dëkk bi ñu bari ñu ngi xiif amuñu lu ñu lekk boo demee ci dëkk bi ñu bari jàngatuñu école boo demee ci dëkk bi ñëpp ñëpp euh, électeurs ñi ñi ñuy wax les les électeurs ñu ñu ñu war leen domestiquer pour mën leen am d'un côté comme de l'autre ñoo xam nan la ñuy defee par seen plan de manipulation c'est tout le temps la même chose ñooñu mëtuñu mëtuñu sax pour choisir on choisit quelqu'un parce que euh, mooy sama euh, doomu baay la wala sama cousin la mi ngi ci biir mbir mi ci la bokk donc dañ koy voter on choisit on ne choisit jamais parce que man euh, sëñ Saliou moo ma intéressé parce que li muy wax nii dafa baax pour réew mi doo dégg mukk ñu wax loolu kii sëñ Saliou parce que li muy décidé nii bés bu ko defee samay doom ëllëg dinañu dinañu wala dinaa am chance sama doom tekki sama doom dinañ jàng euh, dinañu fajoo dinañu am service santé femmes yi dootu ñu demati ñu leen di yóbbu ci ay ñu dem di accoucher ay kilomètres kilomètres yooyu nan la ñuy def ko man su ma nekkee kii li mu nan laa war a mën a def ba def mieux parce que li muy def ni lii moo ci baax lii baaxu ci li ci baaxul ëllëg bés bu jotee man ba dinaa fexe ba récupérer nguur gi bés ko récupérer li mu def lii laa ci yokk wala lii ci dindi et cetera ñu koy waxtaanee sénégalais di ubbi seen ci dégg mais lépp tourne autour de troisième mandat mais pourquoi on ne parle pas d'autre chose pourquoi ne parle pas... d'autre chose il faut justement pas que une personne oui. des personnes euh, s'accrochent au pouvoir mais ils ne doivent pas s'accrocher au pouvoir c'est le peuple qui doit décider pour a def parce que si le peuple pourrait

fan la dëkk avancé ci ay alternance ak ay machin ce n'est pas ça le problème il faudrait qu'ils se réunissent autour encore une fois je le répéterai je ne le répéterai jamais autour d'un idéal commun lan nañu mais man dama gis ay ñoo xam ne par exemple je vois Mamadou Lamine Diallo un monsieur que j'écoute beaucoup mmh. ce monsieur par exemple mmh. man li ma gis mooy ce monsieur dina il va partir à la retraite alors que man pour man ci sama gis-gis ak samay dégg-dégg ni ma koy seetloo ci xam-xam mais ce monsieur il va partir à la retraite il ne va jamais servir ce pays pourquoi parce que ni ma gisee mbir mi nii il va se fatiguer il va se flancher il va s'effilocher mentalement psychologiquement intellectuellement et puis après il va partir à la retraite il y a des gens certainement qui sont dans l'opposition encore ñoo xam ne mënoon nañ la cité fii ils sont capables de faire beaucoup de choses mais le président ne les prendra jamais tout simplement xam nga lu tax du dama lay wax avant muy jeex hmm. y a un monsieur qui s'appelait je crois que c'est la deuxième fois que j'en parle waxoon naa ko ci beneen télé mais ça m'intéresse parce que loolu dafa am sol trop ci réew ak niveau de maturité civique ak démocratique mm-hmm. Jacques Chirac était en cohabitation avec euh, avec Lionel Jospin oui mu def moom juróomi at il était totalement isolé vu le type de régime qu'il y a en France mandat député yi élection présidentielle war a am ki doon premier ministre am téye gi jàkkaarloo moom pour am pour pour pour nekk président la république Jacques Chirac yàlla def ni il avait été isolé pendant cinq ans ci législature boobu élection am mu gagné wàccee premier ministre bi nga xam ne moo doon jàmmaarloo ak moom pour nekk président de la république mhm. moom premier ministre boobu tuddoon Lionel Jospin il avait un monsieur qu'il avait à ses côtés et c'était son directeur de cabinet et il s'appelait Olivier Schramek mhm. Olivier quelques six mois avant il avait écrit un bouquin amul lu mu yàqul xam naa ni waa patron ma ko yónni peut-être mhm. on pourrait s'en douter d'accord bind juste rek parce que c'est hyper important mhm. mu bind benn livre amul lu mu si yàqul Jacques Chirac boobu certainement propagande pour son mentor pour que mu kii ko ndax mu nekk président oui mu demee noonu yàlla def Jacques Chirac gagné Jacques Chirac bi mu gagné il a été récupéré Olivier ñu naan France mais lu tax ñu Chirac ñëpp di ko wax lu tax Jacques Chirac di jël Olivier Séran mi nga xam ne yàq na ko nakkasul loolu te côté ba la nekkoon. un jour wax ji bari ñu laaj ko Jacques Chirac ci benn télévision mu ne l'amour que j'ai pour la France est beaucoup plus important que la haine que je pourrais avoir sur la personne de Olivier Séran maanaam man bañ bi ma bañ bëgg bi ma bëgg France moo ëpp importance que bañ bi ma bañ. Olivier Slamek ñu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne kii dafa am ay capacité dafa mën sama yoon nekk si moo ko bañee kii dafa war a servir son pays. parce que man dama gëm ni dafa amal njariñ euh, donc ce pays là pour ses compétences. donc c'est dans ce sens que la ñu war a dem. mais ñun ñun ñun lan moo tax yow tey nii man. su mhm. ma bañee Ousmane Sonko man du ma toog ak moom du ma sax tudd turam Macky Sall lu tudd turu Ousmane Sonko. c'est quoi c'est quoi cette haine là Ousmane Sonko quand il parle de Macky Sall il parle que du du mal. pourquoi vous vous ne vous vous dites des choses yow li nga lii def ni d'accorduma ci lii ak lii laa d'accord man bëgguma nekk yow parce que bés bu ma nekkee ak yow euh, li ma bëgg a def pour réew mi du ko bëgg a def du ko mën a def ëllëg un jour bu ma jëlee réew mi lii nga def ni baax na dinaa dinaa dinaa ci d'accord waaye lii laa ci changé ak lii ak lii parce que lii laa bëgg gis ñii laa gisee réew mi et dans tous les domaines d'intervention euh, pourquoi on a la haine pourquoi pourquoi duñu waxtaan c'est quoi votre problème a des fois peut-être leneen lañ bëgg peut-être que euh, confort bi am ci ci nguur parce que dama koy wax de la République euh, au Sénégal yàlla la yàlla budul dee. moom rek mooy différence parce que vous avez tout. changement boobu peut-être la ñu la ñu la ñu bëgg amal alors Karim euh, on a vu ce qui s'est passé hier